مصطفى إذ جاء يمتار ينام شريف إبراهيم هيدر أبو مبادئ لدن مغندودا so ñalawma o yonti ceer mahamadul bachir e hoore muɗum kanko moom mooy déplacé wu jóge fii nag ba amu ànd ak njaboot gi ànd ak o ko le 31 décembre wonata inchallahu taala ɗum noon oɗon tintine ɗum enen fof kawren hen e yamirore ceerno kanko wiyomi haal ɗum ceer ceerno mouhamadoul bachir neena bésu sharif bi neena na ngeen xam ni u bésu sharif de bésu ceerno bachir la bésu sharifu ibrahima haydara bésu cheikh oumar mouhamadoul bachir la loolu waxoon nañ ko Ndeerna Bachir nee na képp koo xam ni soppanaama man Thierno Mouhamadul Bachir na nga xam ni bésu Cherif Ibrahima Haydara bi bés sa na maa ngi fay woo képp ku jàppale ci bés bi ñëw teew fa ma sant yàlla sant la la yàlla sant la leneen lu des ba nu jeexal xanaa loolu rek. la ñu doon wax jeex na gasi yimɓe fof jettama jarnama duwanama cheikh oumar weltima fodde mum eko mbaɗɗon ko yo allah yobban moƴƴere konngol ngol hankadi gasi ha laaɓi arte moɗon ko yamirore moon no mbiɗon fof noon waɗata inchallahu taala